no ngi len di nuyu nuyoog l'islam bi gëna tedd di len ndokkel ci ndajamu tedd mi di ndajam alquran ta ku ne alquran xamne alquran moy mooy rasul sallallahu alaihi wasallam bi nga xamne mo fi dess di andak ak kon buñ ko buñ fi dajee muy ndajam alxuraan ñoo ngi ndokkeel ñi fi teew ñépp di leen ziyaare bu baax waaye di jiital ci nuyoo bi ak ziyaar bi sunu wayjur yi fi teew yépp ñenn ñi di sunuy bàyyi daara ku mel ne Cheikh Mouhsin mi fi jóge léegi ci jotaay bi te bu ma ko ci tuddee mu doy ci sëkk ñenn ñi di suñuy magi daara ku mel ne sëriñ Xaadim Njaay ak ñi ci des ñëpp kàddu gi nag xam naa ne day kàddu tiraanga moo tax mënuñu koo ñàkk bañ a jël waaye man fii ci daara ji dama cee bokk kon buñ ma fi joxee baat xam naa ne terale ma ko lañ ci jublu waaye fii sang bii toog di joxe parole yi fi laa waroon a toog te loolu ñi may dégg te xam ni ma fi demee xam nañ loolu kon alhamdulilah man dama cee bokk ci daara ji kon li fi kilifa yu baax yi wax ci alquran ak njariñam ak diine tama yaakaar ne ku mel ne sëñ xaadim dana ci dikkaat léegi jàpp naa ne loolu doy na sëkk kon duma guddal kàddu gi sëñ bi may na ma juróomi minit waaye ñaar yi sax ëpp na damay sant rek gërëm ñaan xanaa wax rekk ne ni ko sëriñ bi waxe léegi alxuraan ci jamono yi ñu toll alhamdulilah nit ñi dey mel na ne xam nañ ko bu baax jox nañ ko lu baree bare bari ci seeni xol damay wax rekk la Sayxul Xadiim waxoon ci ne mujjug jamono nit ñi danañ gëm waaye duñ wóolu kenn wérante wut ne fii ci Sénégal nit ñëpp bëgg nañ alxuraan loolu kenn wérante wu ko xol boo làmb rek bëgg yàlla ak alxuraan ma nga ca waaye kon jàpp naa ne li des mooy ñu wóolu alxuraan ci sunu àdduna ak sunu àllaaxira wóolu ga nag mooy tax lu mel nii mën a am mooy ñu mën a wóolu sunuy doom gëm ne alxuraan mën na leen teral àdduna ak àllaaxira loolu mooy tax ñu mën leen a jàngaloo ndax ñu bari ci nit ñi bëgg nañ alxuraan waye nak dana len jafe ñu jangolo ko seeni doom ndax ñak ko wolu ci tralé aduna lolu message la bo xamné dama ci jaar rek ku melne Serigne Khadim bu agsee gën ci yaatal ndax lolu domenam la kon mangi sante sant di gërëm ñëpp di ñaan yalla mu barkel jotaay bi euh, di sante sun kilifa yi fi jaar bu baaxa baaxa baax baax taxawaay yi kilifa yi nga xamante ni jàpp nañ ci bu baax a baax ñoo ngi leen di ziyaara ma ràññee ci suñu dëkkandoo yi fi toog di suñu wàll ci wàllu kilifa ak àdduna ngeen tudd leen léegi ñu ràññee leen xam ko mat ci seere ndax ay niti daara lañ kon ñoom it ñoo ngi leen di ñaanal yàlla gën leen a dëgëral dolli leen tawféex kon daal ni ma ko waxee woon rek du ma guddal kàddu gi dama xam ne teraanga la mënuma ko mën a ñàkk jël rek waaye message bi daal maa ngi ñaan sañ xaadim bu jëlee kàddu gi mu mu mu mu mu mu mu ci bu baax a baax a baax in uridu illa al islaaha mastataxtu ma bu dee wàllu image bu leer filmé bu professionnel